Euh, ñu ngi bëgg a waxtaane kilifa gu màgg gu tedd waaye itam bis bu màgg bu tedd euh, ndax jataay bi ku ne xam na ne euh, jataayu lislaam la jataayu murit la kilifa gi ñuy bëgg waxtaan nag day kilifa gu fi jaaroon goo xam ne yàlla suñu borom moo ko baaxe woon xeet wi mu war a nekk royukaay te suñu borom li muy digal ci royukaay mooy roy loolu moo tax ñuy waajal bis bu màgg bu tedd mu bisu sunu jàmbaar ja di jàmbaari jàmbaar yi ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha tudde woon muy Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bis bi di bis bi nga xam ne ci la feeñe woon jamono di ñaar fukki fan ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kor ci njaareem ñu def nag saa yu bis bi Sidi Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal di ab xalifaam ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér mook mbooleem ay rakam di ñaanal magam kilifaam di Cheikh mun Muntaqa mu yàgg fi lool te ànd ko wér mbooleem ay yéeneem yàlla suñu borom àggaleel ko te mu ànd ko taaliba yëpp saa yi bis mu digal ñu di kuréel gii di lañu du saqaafa di commission culturelle bi nga xam ne moom ci boppam moo ko taxawal te jubluwu ci lenn lu dut gën a yaatal njàngaleem Cheikh Abdou Lahad gën a fàttali ko dundam gu fees dellëg ak njariñ ba tax mu wut ay doomi soxna yoo xam ne ñoom it seen yitte jëpp du lenn lu dut tënku ci loolu te mooy njàngaleem sëriñ bi euh, commission boobu nag ñu ngi ci ànd ak bokk yi muy sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Moutalib Bousso sëriñ Abdou Lahad Bousso bi maam Asta sëriñ Bousso bi euh, maam sëriñ Bousso sëriñ Cheikh Abdou Lahad Ka sëriñ Mouhamadul Kabir Ka sëriñ Moussa Ka sëriñ Abdul Ahad Buso bu sëriñ Cerno Buso bu sëriñ Afiya ñu wuti fi yeneen sëriñ Abdul Ahad yi ak yeneen bokk yi ñu ko àndal sëriñ Abdul Ahad Buso bu sëriñ Muxtaar Buso bu sëriñ Afiya ak yeneen bokk yi ci des yëpp euh, ñu ñëw fii nag ci kër goo xam ne euh, yaakaar naa ne kuy bëgg xam dara ci ak murit akuk taalibe soo fi ñëwee ak si nga ndax borom kër gi li mu waxoon mooy ak taalibe moom ñëw ci kenn ku dut Cheikh Ibrahima Fall làmp te ku ne xam na Cheikh Ibrahima ni mu meloon ci yoon ci ak taalibe muy kër Cheikh Mouhamadul Fadil radiyallahu anhu wa nafaana bi eh, kër googu it ku ko wax xam digganteem ak kii ñuy bëgg a waxtaanee muy Cheikh Abdoul Ahad ci ay taxawaay yu am solo. kër googu nag ñu tànn ci it kenn koo xam ne it e, ku ko tudd moom it tudd ak murit tudd pas-pas e, tudd jom ndax li nga xam ne mooy li am solo te mooy li sëriñ bi bëggoon ci nun te li li ñu tax a jóg muy bëgg a fàttali ndaw ñi wala xamal ndaw ñi fàttali mag ñi moom mi de ci koo xam ne kii ñu bëgg waxtaanee ku ko marqué la ku mu yëg la ku ko ko aw doxinam neex la ba tax na mooy royukaayam ci lépp ci jaamu yàllaam ci muritam ci lépp kon muy sëriñ Habibu Mbàkke mu Seex Muhammadul Fadil defe naa ne loolu moo tax liggéey yu am solo yi nga xam ne dëkk bi mënu koo ñàkk te borom dëkk bi loolu rek la bëgg ci dëkk bi liggéey yooyu mu taxawee ci taxawaay bu am solo ci fànn yëpp yu tax dëkk bi gën a nuroo ak turandoom ba mu ko tuddee ci aljanna muy Touba mu jiite kuréel gi ñuy wax Touba ci kanam di daayira bu am solo boo xam ne li yitteem jëpp mooy na Touba jëm ci kanam te kenn nattiluwut ne Euh, taxawaayam tax na kuréel gi taxaw taxawaay bu am solo boo xam ne ñëpp noo nañ ko ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu gën ko ci defal ay ndam yu kawe bàyyi ko fi lu yàgg lool te mu ànd ko wér yàlla aar ko musal ko nu raw ni mu aare dëkk bi ci barke sëriñ Tuubaa mbaax mi kon sëriñ Habibu ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax ci turu sëriñ Sidi euh, di la laaj rek kii ñu bëgg waxtaanee muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké

taalibe yi bokk julli yi turandoo Cheikh Abdoulaye yu teew ñu ngi leen nuyu kenn ku seen tur seen sant de den ziyaara ziyaara boo xam ne julli dana ko nuyu ziyaara bokkum jullitam waaye ziyaara boo xam taalibe dana ko ziyaara bokki taalibeem di ziyaara seen siidi mi nga xamee moo nekk ci bunt ko Cheikh Abdoul Ahad ak njabootum góor gi ak njabootum gépp waaye njëkkati ziyaara bi ak nuyoo bi Sëriñ Tuubaa Cheikh Amadou Mountakha bu ñaan yàlla yàlla ku yàlla yàggal te àggali mébitam te wéral ko wéral wéral la ko ñu ko euh, fi liggéey bi nga xam ne moom ko gàddu Seex Xadim ñëpp ñu ànd ko moom ba fu mu ko bëgg a àgg mu àggale ci ak Seex Xadim euh, ñëpp bi moo xaw a jaaxal nag ci ni kan sëñ Abdoulaye boobu nga xam ne kan sëñ daal xam naa ne man maa ngi koy misaal ne amul fiqri la amul mooy yaxub digg ginnaaw ci yoon murit loolu laa ko a loolu laa ko mën ndax jawaani bi mu féete ñaari wet yu féete yëpp ci wàllu Seexu Xadim wàllu gi nga xam ne mooy njaxate kuñ tànn la muy mu ñëw jamono te ku Sëñ Tuubaa yaakaaroon la ci te yaakaar Sëñ Tuubaa yàlla wut si mukk ndax Sëñ Tuubaa mos ta yaakaar suñu borom mu jëmm joo xamee ni ku yomb waxtaan la waaye ku jafe waxtaan la ndax dañoo wax ne ñaar kenn ci mur seede ku la bëgg ba ñëpp xam ne bëgg na la ak ku la noonu ba ñëpp xam ne noonu na la man nag yàlla dana nattu ñu bokk ci ko bëgg ba xam ne dañ ko bëgg ci di ko roy damay wax toujours man mooy sama roy ci yoon yi ndax lu tax ñaar ñi mu wutu muy Cheikh Modou Moustapha Cheikh taaw ci saa yéer ñoo ko mag waaye bëgg Sëñ Tuubaa ak pasam Sëñ Tuubaa moo ko àgg dafa jëm ba bu ñu tuddee tudd ko boo ne ñaar rek ñett ngay kon boo ne iman islam ihsaan waaw mu jëmm joo xam ne dañoo marqué lu bëree bëri xaj na jaxasoo gi bëriwul maanaam ci moom waaye tuuti lañu xam ci moom rek ndax du ku ñu xam sax ku ci wax daal ci la la la la waykat boo rek bii du woo ko abbu jox ko si te boo la moo xam ne boo ko solee ñëpp dañu xam dëgg la fekk bi see xool sëñ tubaab yàgg mu ne ko fa fa kullu matxin di xii da fi rajulin fa ant saahibu yaa ayyuha rajul aw tagg fu ma dee rek fu mu jotee fi ñu ko waxee rek ak fu mu neexee rek yow mi yaay borom kon loolu ma ne si wax Sëñ Lahat nga jëmm joo xamee ni ku sigal Sëñ Tuubaa la waaye ku sigal yoonu murit la yoon yi day mas naa dégg ci mag moo xamante ni jaxasoo na moom muy sama maam man mi mu ne ko sëñ Moodu mu ne ko sëñ Moodu xëriñ ak mu ne ko mu ko Mbàkke mu ne ko yoon yi bala ko bàyyi naa ko régler daa ci def sac boobu mu fi nekk sa jigéen dana ko a yor naa ko régler naa ko régler waaw ba ba yor jén sax da ko mën a yor <coughs> te am na nga ndax euh, sëñ Tuubaa sëñ Abdou Lahad li muy njëkk di doomu aadama complexe col gëm naan col ay daal sol garam boobu di sol ay xaftaan waaye bàyyi laat ci moom moom ko keree génne ko muy mu moo xam ne kenn du ko sol ñu nattul la doon koo sol rek seytaan day ragal moom kon daa mel ne kon yàlla defal na ko loo xam ne mbedd moo xam ne comme la la def si na amat rek mbedd mu jaar rek seytaan day doon <laughs> ko ndax bi dikkee dëkk bi duñ fekk mu fexe ko taxaw ci boo kenn ku jàpp ne mën nañ ko mën naa génn amut waaye xam suñ jëm ak li mu bëgg moo tax mu mu mu àggal fuñ jëm ci bare bare yoo xam ne mën su ko wax ba ci ñun ñi rek barab yi ñu dëkkee toog nañ fukki at ba sëñ Fallou dee 1968 ba 78 amuñ fenn fu ñu nekk ndax bàyyi duñu dara ci àdduna lu taxaw ci saa si waaye du ba bàyyi mooy sëñ Tuubaa ñu koy laaj dafuñ dëkk ñu ko amuñu mu tudd yàlla daan loolu sama kumbala woon ñëpp sëñ ci tax ñu dëkk si Tuubaa waa kër loolu sëñ Fallu war na yoon ma ne dafa dara lépp loo xam la ko jox ca tàmbalee ku judd mu tuddee sëñ Tuubaa bu dee góor bu dee jigéen mu tuddee ko voilà ci ay mbiram ba tey eh, turam xaj na njëkkatul ci àdduna waaye moo leen ko njëkk xamee ci àdduna rek ndax ndax ko suñu tubaab tuddee Abdoulaye kenn xamul rek dañ ko tuddee loolu dañu naan waa tur woowu ku ma sa dégg Abdoul ko rek waaye xul euh, wala ahad allahu samad lam yalid loolu nekk moom daa am lu muy wund ci biir xam ne bi ngeen àdduna da sëñ bi dafa wax ne ku mën sawar ku ko tuddee doon sawar nit ñi ci miir njaareem yeeg càng yaay di bind bind ma xool ndax Abdul Ahad Abdul Ahad ñoon déedéet ku lay wax daan nangam nangam loolu bokk na ci suñ bi ne taxaw fu ñu ko toppatoo fatt su am ñoo def foofu ñoo mag ñi ne ko ñoo nekk fii de mun a tënkoom fonk leen ku baax de ndax am naa ci moom yaakaar te ku ne xam ne te su jàkkaar Sëñ Tuubaa hmm. dañuy wax ne kon dafa mel ne Sidna Omar rek ma di saat jamono ndax dëgg nga nga xam ne lenn caaxaan loo xam ne nit doo ko def sax jiw seeb laa di ko di di di di ko xalaat du am nettali loo xam ne loo gis rek mu am ginnaaw ginnaaw dogal subhaanahu wa taala maanaam cosaan lu baax bokk na ci ndax wal baladu tayyibu yaxruju min dawaatihi bi waaye wala si xabas laa yaxruju illaa nakidan ku dem ci suuf su baax su su saf sàpp nga ji ngeen ñi ko ca dina am yaakaar ci ne dana jiw lu baax. loola kon tànn nañ ko ay wéjur avant mu ñëw ndax sëñ bi ne wax na ne daa xëy bis boo borom daaru mooti ne ko damaa bëgg wutama ci néeg boo xamee ne musu na moom musu ñëw di lekk ma yàlla te doon di borom yi jud di demee sëñ Modou Assa sëñ Modou Assa yàlla taw feexal ko fa mu roñ fa ñëkkoon soxna Mariama ak soxna ñëpp indi leen bi muy xam ne jiit so ndax ndax luy wax ci cosaan lu baax ak ak ak kuy waajal. sëñ Abdou Lahad nga simbi am raxasu képp nga xam ne ku ku ku am ngi ndax ko jox raxasu bu ko jox ndox bu tuuti da ko jox bi jaar mu raxasu ca ndax bu fekkee daal loxo yi daa tilim du ci feeñ ndax bu ti bu raxasu ndox bu tuuti day am gàcce nga gisee amatu yaan si ñëwoon seet yaan si néew bu nekk bañaari ñaari yoo am na ba ñaari ba ñaari yéen ñi di ma fees war nga ba mu jomp ci kaw ni ñu jël saako ci néew bi ñu def ci loo xam ne ma nga ja war a ataat loolu lañ ci wane rek teraanga ji sëñ Tuubaa teraanga ndax li ñu sëñ Mbay Jaxate dafa xool sëñ Tuubaa di ko yaa yeewu yaa a yeewu askan bi ngi yeewu askan pint pantangam am na ku baax koo xam ne nett li ma koo xam ci ci ci ci mbokk yi la bokkoon yàlla ko doon taw muy soppiku jamono si yëpp ter yi fii. mu soppi ko ba as yi bëgg daanu ci kawam. nee na ma ma jàppale yóbbu ma ko ci néeg bee. téye leen ma ko fa taal ko seetlu kaay ga. ñu taal ko kii ma seet bu ñu ànd ba jot mu indi leen ma ko. mu indi ko ay ceeb ginaar mu añ ba suur ñu indi ko ataaya yëpp jox ko. mu dikk yëkkati ko jënd jox ko. diw sàngam. di maanaam ka guro de moo dàq yi nga def ataaya moo génn nangam leer bu dem ko tekk bi yàgg bu ne ko ah sëñ bi. nekk suñu tool bi ma defati. ndax wër na man ne yow day li ngay tere maa ngi ko def di si dëkk waaye ko defee te mën nga rey doo ko lay yàlla mën nga tëj toroxal ma doo ko kenn waaye sama bàyyi ba am na sa bàyyi bu baax ba képp nga ma segal waaye bàyyi donc ngir ngir suñu kon teraanga la la la la ko bi fi indee kël bi yooyu si dëkk bi ñu ah si yëpp di kenn musu nangam nangam mu ne mu ne kël bi yooyu kël bi la ñuy xalaat la bi fi nekkee sëñ Tuubaa dañoo yekkal maanaam yàkkali na yeggale na ndax li nga wax ñooy ñun ñi nga xam ne ay tu tànk yoon rek te mbuutu suñu kilifa googee yeggale gi mooy mooy war ma ji jox suñu fàllu jàppee wu ko nañu bokk suñu tuwaay jëm ci way jur ko jàppee woon moom ba tax na njaboot suñu fàllu gi nga xam ne ñooy ñu dëkkandoo woon kenn ko xam si la noonu jël ci am ci amu ci ndax war ma gim jo ko jox ngir suñu tuwaay suñu fàllu mosu ñu ma xam si ibla war daal si ibla war ma la ko joxewoon kon di ñaan yàlla fayal ñu ko rek lim yéene ci lislaam yéene moom ko ci lislaam def ko ci sax loolu defoon rek bu ko suñu toog jóortoo rek du lar waaye lim génne ci dëkk bi ci ci ci ci ci xeet yooyu rek yàlla mën na ci defa mbir addo alaxira kon yàlla yàlla bu ko ci jiitu mm, nit ñi nag di ni seen heure tour ku baax ku moo jar ñaana ndax cat day topp di bi ci bàmmeel nit daa baax ñu ne ah kooku jar ñaanal ne te loolu la waaw ndax sallallahu alayhi wasallam mu ñëpp dañ ko ñaanal parce yàlla ko yàlla dafa cat yàlla na yàlla teg loxoom ci ak njabootam li mu liggéey Sëñ Tuubaa yàlla na bi set yàlla yàlla na yàlla gën a yeesal. mbiram nag moom xam naa ne eh, liñ ci mën a wax rek alxuraan moom ni ko ni ko jëkk woon ak ni ko waxoon mais eh, day mel ne aay yi ni mu wàcc ci sallallahu alayhi wa sallam lay ñëw <coughs> fu am aay rek maa war place yi te bari naa ba saar yi di soree di maa diggante bi soree waaye nu ngi koy xalaatee rek day day day ñëw benn départ fii benn dikk comme ni comme alxuraan nu wàccee rek nekkul wàccu bi jumla da wàcc ay fii ay fii ay fii waaye bu ma sàtti alxuraan euh, du bind discours lu mu bëgg wax rek ci saa si kon bokk na ci kim taan sëñ tuwaay ko xam ne defal na ko dégg alxuraan nga xam di ko dégg yow moom yow mi xamul yow mi am xamul amul xam-xam sax mënoo mënoo xam firi bu sëñ la jàngee aay bi da xam ne firi ci saa si ndax ko jegeel dafa la jege dafa la jege aay bi jegeel la ko ba nga xam ne euh, xam nga ne xam nga ne xam nga ne kii daa moom la yàlla wax ci alxuraan ci moom loolu lépp ci bagage suñu tuwaay la bokk suñu biir bari bagage euh, man nag li ma gën a marqué boobu ba wax ne man mooy mooy sama réussite mooy parce que ñu ak bëgg gi mu bëggoon suñu tuwaay ak wóolu gi mu wóolu sëñ bi donc wóolu suñu wax nañ ma nee nañ kàllaaj yi takk yëpp bis mu doon suñu tuwaay bis mu dee daa gas lépp mu suul mu gas mu suul ko fa daa dina lay muslu amatu ma ndax fii moo fi jëj armée laa jëm waaw am lu mu sotti ndax ku dem mën a yaay suñu tubaab moom amul fa ñëwati ndax ma àgg ci plafond bi moom fu ne bu fu jógee rek seen la jëwati kon nag luy mus doog a jërtu la ay ñaani suñu tubaab ci rek yooyu la wax waaye jimmi gàllaaj yi moom xalaatu ko woon bàyyee boppam yàlla lépp jox ku wéetal yàlla la woon nag turam boobu day ku wéetal yàlla woon ñun ñëpp xam ni ko ci ndax li ñu dëkk bi rek loolu bu ceewoon rek doy na jaamu yàlla sëkk defoon na ab sag ci yoon itam ni ma naa ko rek daa sag bi mooy murit ci boppam teguñ ko fenn mu jëkkoon waaye bi ñu toogee ku ne bëgg ngaa doon murit ndax ci personnalité ba seen blaat ab piis lay sol boo xoolee ndax dañ see ñaari buubu ñetti buubu daf ci gaala gu rëy daf lépp nga xam daan piis mbasee moom du ko tego biteelu sikkitin daaw ko séddale bu dajee bi sikki day sotti ci bagg mi sotti ci bagg mu jeex mu sànni <laughs> loolu ci personnalité bi la bokk waaw lu fag lu fag daaw waaw sëñ bi sikki moom daa mel ne tubaab yi sax daa mujj yàgg waaye lépp ci ci ci suñu borom li ñu préparé sëñ tubaab yi bokk mm-hmm. ndax 1853 nee nañ sëñ tubaab ci la ñëw àdduna ci saa si ci lañ gis 1853 mm-hmm. ci lañ créé fondé maanaam euh, sikki boobu mm-hmm. gerlin boobu waaw loolu kon xam nga kon moo leen ko waajee nee dem ne ba tubaab yi ñu jógee France di ñëw naan ndax sikki sëñ ko naan ndax <laughs> fi ni bari gi mbari ay ban la daan doon mm, ni mu amoon tim lu ko li ko may li mu am lépp lépp lépp ginnaaw dogalu yàlla dinaa doon doom Sëriñ Tuubaa parce que parce que may na ko ak bëggam ndax lu amoon Sëriñ Tuubaa lépp da ko jël jox ko Sëriñ ndax xam ne dara gën a fort bagage mu jox ko Sëriñ Moussa topp ko na ko war a tëpp lépp li mu am bagage bagage gis di mu ko amee yëpp ci góor mag ñi nga xam ne fekkoon Sëriñ Tuubaa lañ fexe na ba mag ñi xam ne nekkoon Sëriñ Tuubaa mu xam ne ku ne récupéré na la te sax doon du seen wasiila sax waaye récupéré ñëpp ngir jëm Sëriñ Tuubaa teela ci kanamam di xool Sëriñ Tuubaa ku ne mu gunu la ba xam ci yow ci Sëriñ Tuubaa denc loola mag ñëpp kër ñi amul ay néeg ci ñoo xam ñoo ñaar nit ñetti nit boolu am néeg ne nekk barab mu jël ñu mën ko xeeb bu xëcc ko taw amul genn kilifa diine ko xam ne ne ko fii dañu bañ tudd trop dafa xaw a néew doole war doon xalifa foofa ñu xaw a xeeb ci noona bu mu dikkee mu ne ko waaye yaa fa war a nekk mu ne ko yaa fa nekk mu ne ko baax naa dana taxaw ba nga ko taxawoo na nga ko taxaw da ko samp ab oto bés peq la wàcc yëpp seen kàll wecc jënd ko xotti ay piis ba see jox ko jox am mbaar bu fees dugub ak teraangam yooyu mu xamoon rek eh, gana ji ko yandu fa ba ngoon jot lañ ko dajal lépp mu ne ko ci ab artabet yëmu ko jox ko googu dafa fa tànk kon noonu lay noonu daan tàlle nit eh, day fekk nga ñu say bokk di la xeeb mu yëkkati ci ñoom ndax tabe ba dara ba ba tabe ba jeex tabe ji dara jee gën euh, wax ma benn xisa bu boo xam ne génn góor goo xam dafa nekkoon ngeen ngi neew di ma peese gerte waxtu bi gerte gi bëgg yor na mu dikk ne ko damaa bëgg su waa réer war naa toll nangam ma bëgg nga lewal fi nangam ba ko joxee loola xam naa la ko jàppoon ba ñuy dem ba jëmi jamono ba waxtu yi xam ne tere dem nañ ba coono si gambu nga xam léegi dañuy séntu gerte ñu ñu waaj a jël jiw yeeg nangam nangam léegi fi ne gerte amatu fi mun man sama waay gisuma ko gert ga ma ko indi joxuma gerte ga sama xaaj bëgg la joxuma ko naa ñu seeti ko dem bokki barga ñoo ko suñ bi nekk mu dikk tuwaa ko nekk nee na mu mu leen Ndakaaru yu ne ba su àllukaay suñ bi xamee ko fekk suñ bi daa kër yooyu foofu ëtt bi mu ko suñ diw sàngam xaaral ma nga seet si mu ko waaw Mbàkke wala si dama daal fee bokki bàgg ñoom nekku ma ñëw fee ma nekkoo fi mu ne ko waaw ko waaw mu ko maa ngi jégalu maa tooñ de waaye du sama jikko jamono rek ma jàppoon de waaye daa bëgg ñu dem ba fi nga jëflante maa yow ma joxoon ba waxtu yi nga jaay ko loo ci am tekk bi yàgg mu ko yow de xam naa si ma bay si bàyyi ngor gi doomi sëñ bam rek mën a am maanaam fay na ko xaalis ba fay ko loo xam ne bénéfice ba xam ne tey bu ko dencoon ba wax ko loolu ngor yooyu di ko jàng ci moom ñun ñëpp dañu war jël ay bind ci moom di ko nafar ndax ñoom kat simbi bu fekkoon roy daa dafa dafa dafa kiiwut kenn sallallahu kenn du ko roy kon bu ñu la barkeeloo nañ leen roy ci jukko ak teranga ak jéem a teral nit ñëpp seen bàyyi di sañu tuddee sëñ Blaat lu mu ne seq ñoom rek la ku ne xaw nga sëñ Tuubaa ci moom waaye boo dikkee dana def ne xam ne yow bokk ci sëñ Tuubaa bés bés yi xëy ngeen jël fi ngeen xam ngeen yéen waaye bu dikkee kenn ku ne dana xëcc baayam teg ko ci peggam xamal ko la xool sëñ Tuubaa ci moom la ngeen nàmp sëñ Tuubaa ji nga mooy mooy mooy meenu sëñ Tuubaa ci yéen mu téye leen ci loolee xoolee ba kenn ku ne ci yéen da ah man na ma teraanga joo daal sama ji naa ko tuddee Abdoulaye yi ngeen ci yëpp ci ci sax ab ab daal teraanga ngeen daal gën gàtt mooy loolu waaw kon loolu rek waaw daanaka war naa mën a kii rek waaw. waaw dafa la ñëw rek waaye moom xam naa am na kaay boo xam ne sax defe naa kaay ba man yor naa ko fii sax defe naa jëmmi kaay ba maanaam defe naa ñaar fukki at xobu ñeent fukki at yoo xam ne si sama daañu waxal ci alxuraan ji. da am na néegam boo xam ne est-ce que sëñ bi laa leen ko téye woon Moussa ñëw ba dem kenn du ko dublati te mu def sànn mais baax na ko defoon boo xam ne ay yoon sànn yëpp ci biir kër gi ñaan ne sëñ bi laa Moussa dikk dafay am léeg-léeg mu dikk ko xam ne kenn du ko yëg sax léeg-léeg ak yor-yor am bis boo ne dafa dikk yor-yor boobu sa maam ñu ubbeeku génn ko ñu dikk soo su astawala soo teel ñu fëgg ko ba mu moom lu mu sol ab daal la soo ñu si la daa mel ne ko fàdd nit ñi ndax bu saa jégg suñu tuwaar ndax mu caa xamee ne doomi suñu tuwaar du caaxaan maa mag ñooñu gisoon suñu tuwaar ñu bëggee suñu tuwaar ci ñoom laa ko gisee moom daa yoroon dund asma bu naan kii waaye bu doomi suñu tuwaar ñëw dootu ko yëgati loolu seet naa ko ci moom suba teel bu ñëw ne ñu ñu fëgg ko mu ne lu xew yow kaay wuyu si Ibrahima bii ci bii tax ci baar bi fekk si Ibrahima di wér ci mbaam bi te kii loxo yi mu as ci groupe daal ñu ñu siyoot mu dugal ñu dugal mu néew fu ma jëm néew lan mu teeb départ jógee fa ñëw ne xurbaak la jëm si bi ñëwee ba xurbaakee bari bi Abdoulaye dem siyaare fa ba noppi ñu ne ko suñu mën a xëy mu ne ko mbàkk mu ne ko ma toll ci barab bi di siyaare lëf toll naa sama nopp bii mais barab bii ku ñu jégguñu jéggal lu aju fu yaa ñaan faju barabu abiyullah moo topp sëñ Tuubaa nee na moom sama maam ma toog ay kii daal ne ah waaw man lii ma dégg sëñ Abdou te yéen naa ko sama bokk taalibe bi yëpp ñu jëriñoo ko te boo ko waxee moo naa senn te nit kenn du ànd kilifa ko senn ndax waxuloo moo ko xaar naa ko laaj ba xam ndax mën naa ko jot li wut moo ko ko fenn ndax baa moom man la ko waxaatu ko keneen te bu sennee dana dana man mi doomu ndab <laughs> kon kon dama laaj ko ma ma dikki ne ko ah ñuy waxtaan bi suñu waxtaan gi doo mu ne ko am loolu la dama bañ mu sànn ndax man dong ko waxal xam naa ne waxoo ko ah yëguma ko ko waxaat bokk te bëgguñu ko diggaat nga ah, kii dama ànd muy sànn te ah, bu moo saw boom waaw kon nga xam ne mag ñi ko tim ni ko kaay si Modou Xadim mu ne ko Mbàkke mu maa ngi ay tabaski bor tabaski bi bàyyi ko suñ moom te màggal fi bàyyi ko ginnaaw màggal màggal fi des la ko seen mbir benn la maanaam nañ ko boole woon ñu ñaar euh, liñ ci mën a wax daal suñu ablaat moom lu bare bare ndax am na yoo xam ne moom mbir biir la moom yooyu jëru nett li ndax lu ñuy wax ci ci ci ci ay ay média ak nangam nangam waaye dama daal di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fayal rek man daal li may ñaan nga rek roy gi ko jéem a roy te xam naa ne moom dama bëgg dimbale ndax euh, am ko wax yow yow sëñ la yaa ma wax téléphone di wax a naa ma euh, Pastef bi ma ne Pastef bi man amu ko bëgg rek di dem tam si maam théâtre naa naa naa naa bëgg sëñ Tuubaa loolu ci dama dimbale waaw xam nga dëkk yi moom loolu loolu rek ndax bu njëkk boobu sax dox mbedd mi yeeg pinc bi yi nga gis ak bi leen mant yu sew saa yooyu di ko gis moom ci mbedd mi kàccoo di di ko def nam xare loolu loolu moom mbirum yàlla ci am moom ndax loolu ne naq din la ci kaw suuf euh, ndax euh, am loo xam daa saxi ñun daa mel daa mel saxi ñun waaye wala yaqaafun lawmata laa'imin amul lu mu nafaale moom waaw ndax bu xasee jóg ma bakka la ci teg te nit ki mu mu am mu am mu am mu am courage dëgg dëgg day la la fa mu wii si jëm fa day xam ne fii àgg fa moo na dem rek ndax yàlla moom boo boo fëggee taa bàyyi mu ubbi la fëgg taa bàyyi rek bu wër na dëgg lu ci yow yàlla dina ubbi bunt loolu ko ma doon dimbalee ba ñëpp jàppoon loolu ma am ndax la njëkk xool boo xoolee marché bi ko toj kenn jàppoon nañ ndax daal di dañuy toog yaa ngi ñeen dëkk amul amul amul cent huit cent xam ne amul borom amul borom yu yoo xam ne ñu ko yoon yi di ko maañaxe bi nangam mu xam ne xëy dañ koy liggéey moom ndax daana wax dama dama dama gontu bëgg a dem ñu xëyoon waaw ah, ko gont da a dem ñu xëy ñu ko xam war nañoo ari waaye kon a naaw daa nga daa tax jamonoom <laughs> dafa tax jamono boo xoolee ku taxañ jamono na ci itteem te dañu nag ci boppam mm, moo xawde de waa itte dafa moo gën a ñëw jaasi fekke fekkee nit ki waaw bu fekkee nga bëgg mais asamaan sax boo bëggee yéeg itte ma nga ko fay weer wa da kenn xaatu woon weer waaye itte gëm na ndax yàlla wa allama aadama asmaa kulla hmm? la mu ximu woon laa mun taxaat xibaar yaa wa ximatu suxra ak ajalu mina dahr waaw kon ji adduna bu fekkee amu itte rek moom dama nga àgg fa jëm Euh, kon mm, fee mujjee rek di waxtaan di am nooy nooy comparé comparaison dafa baax ci àdduna léegi nga nuance si mu taxaa dafa nuroo si Abdoulaye yu bëree bëri ñu war sedduñ ko si Abdoulaye kenn mosu ko ñaan yàlla gudd fa mën a amin càll la daan def yàlla nga gëmoon suñu tuwaa mën a amin si mu taxaa bi kasaa loolu gis nañ ko ci moom beneen ba moo doon ñetteelu xalifa suñu tuwaa doomi suñu tuwaa yi toogoon ci jal bi moom mii mu ñetteelu kër si Sëriñ Tuubaa yi ñoo bokk bis ñu toogee tim jal bi bu hmm. gën talaata ba seen àllarba loolu ñoo ko bokk seen ñaari way ji bokk aw sant bari na moom it doo ko ñaanal mukk daan yàlla gudd fan si mu taxaa du faalewu la yàlla ngërëm Sëriñ Tuubaa xam ne ngërëm gudd fan ndax gudd fan yàgg-yàgg dana am fu mu jeex te ngërëm Sëriñ Tuubaa amul fu mu yem loolu kon nañ ko ñaanal moom a bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal waaw ndax moom yëg naa ne soxna ko foofee boo xoolee boo xoolee boo xoolee naal yi mu naaloon rek rëy gim kenn imagine kenn xalaatu woon ne ma ma nu ko doon laajal ndax boobu kenn xalaatu woon xoolal bàq ya koo mën a ñàkk tey jii université bi mën na ñàkk yii yëpp xool ko si bi ah kër suñu tubaab yi amutoo ndax nit ki boo amee dëkk dafa am kër waaw ñu ñu bëri daal dafa bëri daal ay masaare yu bëree bëri yoo xam ne moom ku ne ku ne mën loxo ah principe yooyu si daal mooy mooy am kilifa rek ndax dañoo ko ñàkk kilifa seytaane moo doon sa kilifa nit ku ñàkk kilifa ba demee àll ba sax ba nga dem ajatu da wala wala wala kii wala garab te googu mooy sa kilifa kenn ku ma àdduna ñàkk ku la ne ku ne bu amoo kilifa wax dëgg kilifa moom ñëpp ko am benn kay kilifa seytaane wala kilifa bu wax rek waaye kala kala téyur daal na bàyyi nanga bàyyi nanga bàyyi nanga daa bëgg nga topp si ko rek loolu rek la <laughs> ah loolu rek la amul amul xalaat bi ak la ah? moom moom si bi liñ mën a liñ mën a roy ci moom dafa bari dafa bari lool lool lool yàlla bu ñàkk kilifa ndax ñàkk kilifa baaxut suñu béy jaaxal du nga ko waxee kilifa mooy li am solo boo ko amee am ku wéru yomb ma waaw hmm? waaw xam nga loolu a mari basi si waxoon nañ ko ñeen mas naa laaj ñu ko gone yi moom si ñàkk teg yi nang mu ne ah ko xam du gudd fan du am barke kooku jëru jëru jëru ngeen bàyyi bàyyi yi di gudd fan ñu am barke sëñ bi ku bëgg gudd fan da ku bëgg barke da da nga jox war ma maanaam jëmee sëñ Abdoulaye kenn ñu mënut a wax ci rajo bu mu waxaat sëñ bi damaa bëggoon man loolu sur dama gëm loolu fi ne li nga ma def soxla lu lu metti ndax damaa bëgg damaa bëgg feeñ ci dara boo gisee ci liggéey bi ñu liggéey tamit damay fexe rek ay nit di ko jox dax donc ci la laa bëgg doon si nekk ci ginnaaw di pousse muy takk ndax ñàkk kilifa dafa wóorut te itam maanaam nit ki mu yilif nga nga xëccoo baat amul njëriñ fi na am ñoo xam ne dañoo complexe complexe la yow la nga war a màggal màggalu soo ko xanaa du rey du rey du rey aadaati jàmm ak taxaari jàmm lu baaxul kenn ko def nit ki dafa war a am dimam gëm-gëm ko suñu bilaad ku ne xam ne africain yooyu moom ku ne xam ndax même alxuraan sax ni ko jàngee boo xoolee loolu fi ne ñu bari ñi taqali def def ay loo xam ne kii mu daa am na sëñ bi daa am dañ daan jënd kaamil yi ay xumus ay ansar ay nangam nangam bind ay boole yëpp ñu bëgg mel ni bëgg ko bëgg ko changé du ko jërut fi ne boo xoolee ñuy yooyu yëpp xam nga am loo xam ne yàqut ji defur ji sa loo xam lu yëpp ah waaye fii ne loo gis doomu Sëriñ Tuubaa def ko mag ñi Sëriñ Tuubaa yoroon defuñ ko képp ko ne teewu ko fenn nit ki ne dama da dama dama fekk da samay maam ak samay baay amoon te mu wóor ma lu baax ngi ni ah te ñoom lañ def ma ngaa ñu baala mi mii nii ndax ñi Sëriñ Tuubaa yoroon ak ñi Sëriñ Tuubaa juróon foo dem ñoo def dëkk bii ñoo ñoo defal nit waaye yéen ñu jàngal yow loo ko gis théorie yi ñu jàngal ay Karl Marx Descartes Lénine ay nangam nangam ah ay ay théorie yoo xam ne maanaam dara taxawu ci te te maanaam benn dëkk boo xam def nañ ko amut kenn nit ku dafa di soo ko waaw sëñ bi laa xool ko fii taxaw sëñ bi yu bare bari man dañ ko ci war ndax fii rek ñii ñii ñii ma gis ko lay def waaye waaye koo xam ne doo gudd fan moo ci dee bari gaaw rek waaw ndax ndax ñàkk teggin kenn wërmalte kenn boo amee sa machine bu set gi sa ngoom caq-caq nga am sa portable yi caq-caq kenn fenn ku tudd nga saaga ko wala nga wax ko ban baaxul sëñ bi nañoo war doyal sëñ Tuubaa te doyal sëñ xam na sëñ bi yow yàkkamti loo xam ne togg nañ ko ñor xam ñu jox la lekkee sago boo lekk ñaar doxul jeex waaye yàkkandi fat jëru ko alal ji ni bari bari bari boo nee fàtte ko ah, boo dee ñàkk ko ku ne ci ñun de war ngaa gëm ne dangaa war a nekk maanaam représentant Sëñ Tuubaa fa nekk bu kenn jaar ko ci ndax sëñ bi ne képp ku ñu tudd ma tudd nit bàyyi ko ca àll ba xeme maa gis njëkk yem ci sa jikko ak mu ko boole saa dañ ko lay maa yow day gis ñoo xam ne waaye ñun nag lu ñu dal ñoo ko def suñu bopp sëñ bi dañu tànn tuuti nag xam ku tànn na ñëpp taa tànn lu ñëpp taa tànn ñëpp al isaab teg fii moom ñëpp xam nañ ko waaw mi ngi noonu waaw lu la baax daal ñu daan baax ba dëgg ñi ngay baax ñu la am ci bañ rus ngay am ñoo xam ne xam nga ragal ak jomb daa bokkut as ko day jomb ragal moom loo gis nga man ko man ko loo gis amu ci pare waaye da nga jomb jomb nag moom ci nekk sa nga loo loo boo ko bëggee ah, man nag man yii nu ko def ngir nangam ah waaw kay danga xar nga yàlla xabar nga yàlla dëgg-dëgg fool nekk sax nekku ci nag ni sa ma ngay juddee ba ngay nangam di yooyu yàlla ak sa danga ko def obligatoire la waaye da bàyyi te dara ci yàlla tax am yoo ko mën a bàyyee yoo ko a defee am yëpp bàyyi yàlla tax loolu moo jafe ah? loolu loolu ñu war a ñëw génnaat yàlla suñu jabar gi namp dara ci lislaam gis naa tim euh, man loo xam ne wax dëgg yàlla ci ci ci ci ci ci société bi dox yoo xam ne maanaam xeex Sëñ Tuubaa man ci doo ko gisee waaw ndax jur sa doom takkee ko addiye mm, jur ko ci addiye ñeenti ko ci addiye dem dem dem jàngale ko alxuraan dem di ko jàngale nasaraan te tubaab bi bu fexe ñu suñu tubaab doom ñu bëgg doom ñu bëgg mukk ci àdduna du ko am waaw léegi nag la la lañ la la suñ tubaab bayoon ba ban ko ginnaaw ñoom moom mu bañ suñ ba ban ban ko dakk diir ko yéen fii léegi yow nga nga xëccaat ko indi sa hmm? waaw nit ki du lay di day gëm ni am mm-hmm. waaw nit day gëm day gëm boppam gëm sa bopp donte donte donte xam nga ki lu am da ci da ci war di jër ne bu dee lu ba da ci war di jër bu dee lu sabati da ci war di jër ndax loolu personnalité firaw na mii di jëlee ko bay li mu am ya alxuraan ko tudd ki tudd ko yenn ci sallallahu alayhi wasallam <laughs> yoon ko tudd ci alxuraan <laughs> ah, lu ko may day jër wóor na ko la nekkoon waaye gëm na li nekk rek hmm? waaw nit ki li mu <laughs> gëm am pas-pas ni lii man kenn muy sensé waaw ko suñ mu di giite ni ko ni ko fonkaat te suñ kéef yi ñu jox lañ waaw su suñ ñu ñu ñu at ñu def suñu bopp te yéene jàmm te xam ne kenn mënut a yàqal kenn waaye boo boo boo boo gisee ab bu soo dal ci kawam nee nag bu génne ma reeku nang tap tap bu génne kii nam nangam fu ñu tuddee laaj ci baax lu ma ma ma ma ma wax ci su su lu mu am ci lu baax ma ma ma ñaanee loolu baaxu suñ bi ah, yàlla nappi na baaraam yi ñoo bokk ndey bàyyi juróomi baaraam yi ñu juddoo benn bi sax tolluwuñ yàlla soob kon kenn ku ne la yàlla de coow nangu nangu sama morom xam déet waaw kenn ku loolu yàlla ci nag mën na nga suma rey boo ko defee mu baax waaye buñ tuddee ci ab suñu daat nga ne ah ah tane na ñu ñi laaj ñu amee xam-xam ñu ah, ah tane na gars yi tane ah waaye waaye waaye boo def nangam ah ñu ne ah waaw wala wala ñu ne mu ne wala ñu ne boo def nangam de ah ñu ne ah attan na ko de bàyyi du ñu seet lu baax lu tax <laughs> ah loolu yàlla ci yàlla musal loolu nag loolu jikko yi lay doon jikko waaye lépp ñu añ ci sànn rek waaw nit ki day day seexlu bañ doo boo gisee doomi suñu tuwaay koo gisee sa morom nga gis ku ne ku ci gën ne ko ci miin lii mu wax si Abdoul Ahad nañ ko si nañ ko si saa yi wax ko si Abdoul Ahad wax ko si ñoom ñëpp koo koy wax rek yàlla accepté noonu ndax ñoom benn benn kii lañ moom ndax koo gis rek la nga teg moom la nga teg képp moo ko yëfee loolu si yàlla da ko dox suñu toit waaye nag suñu toit li ko may lépp bu tànnutoon du ko am de ah ñu noonu de jiwu daa war sell <laughs> ah njaxañ dawa du bés waaw jërëjëf suñu Abdoul Ahad loolu dëgg la xam suñu séer yi loo nga seet yoon rek gis nañ ko ñëpp gis nañ ko si am séer yi du tudd ni fu nekkut ku maandu la ku wér Sëñ Tuubaa ndig kero bi Sëñ Sidi Moxtaar wàccu liggéey guddi kero bi ko denc bi ñu koy bi ñu koy jullee feeñ rek bi Sëñ Muntaxaa jullee ba na asalaamaaleykum moo ko ci ko tagal loxo loolu sama kàddu kenn wentilu ko mais sëñ Blaar boo xam ne boo boo ñàkk sëñ guddi gi ba bu ko fanaan da nga ko fanaanoo bu dee bu da nga si rek dina kër ga la fële ci kii ba bañ sëmee rek moo ñu ko tàll sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Muntaxaa ay loxoom jëblu ci moom nit ku koo xam ne lu waaye wax ci moom day yaa ko fekk wala nga sosal ko waaye suñ si suñ si wax nag lu mu wax moo nekk ci moom du tricher man mii maa ngi rek ci ci liggéey bii rek buñ demee di ko di ko gaaral wax dama ma ne ko mu ne ma yow bu dugg jëm fekk am xund ma fekk la fa ndax nekk suñ tuwaan ci nekk ma waaye mu ne ma dëkk bi dama teg ci loolu Abdoulaye ka Bachir si Abbas loolu wax wax ko ñoom bu boo ci wax dara maa ko du ma ci wax dara doo wax dara maa ko du ma wax dara ñu dem bis benn sakkaat bi ñu ko ko defaree noonu bu ko def ci sakkaat boobu ñu ne dañoo si si mën leen di wane si si si benn baat du ko wax dëkk ndax li ma xam naa ko jàpp naa ko te bu du fàtte moom hmm? bañ defee noona gars yi dem fa karangaan mu ne ah moo lay yónni ba mu ba ba xam moom yàlla def na ko xëy ba boo xam ne kenn ñëwu gars yi ah wax leen rek ñoo dee woo yónni bi dañoo xaar wax bañ wax sax dafa ne bu ñëw mu sekk wax si mu sekk wax ko def mu ñëw ah waaw foogoo naa ko maana suñu am satu bi ak suñ sidu si xaar ñu dem di tool bokk baagi di wëri tool ci moom ba ñu ba jub waawaan ma ne suñu yaay yoo ñooñu ma ko déedéet mu ne waaw foogoon naa ko de maa ko <laughs> kon kon kon loolu xam naa ci moom ay principe ndax lu gëm ni ko gëm lu mu na ko waaw si yëpp laaj moom loolu la mel moom jëmm la joo xam ne lu mu dugg ñëpp du xam ne dugg na ci waaye lu génn ñëpp génn ngeen ah ba tey may fàttali sama bopp rek ak sama bokk yi ma ko war ak ñooy xam man maay samay morom la wala samay kii bokk taalibe bis yi suñu bis wayjur yi ñuy màggal euh, bare bare nañ ko ci bàyyi nañ fàttali ko ne jëmm ji fi ñëw jaamu yàlla tax mu ñëw fi jëmm ji fi ñëwoon liggéey suñu tubaab bu ñëw fi ak liggéey jullit yi waaye def bisu bisu bisu bisu bisu cakaay ak bisu mm, folklore ah, yëpp ak yooyu am na ñàkk daal waaw dañ ko war a bàyyi xel ne kii kat jaamu yàlla bu ñëw ci àdduna la yàlla indi ko fi muy jaamu yàlla ba yàlla ba mission ba mu yàlla joxoon mu jeex muy wujji borom te yow ñun ñëpp dañu fay def loolu waaye mun góor góorgóorlu ba am bis boobu ëllëg si ñu am ko baax sama maam baax na ana man nag hmm? sa fexe maam yi baax yi sa maam bu ñu tuddee sa maam diw sa nga fukk sama maam diw sa nga maam jooju na la woon sama baay sànga sama sama baay nag waaye la sëñ bi sëñ Tuubaa waxoon sëñ Fall rek fa la yàqul xawlu naa si ah Seydina and Seydina ko bu ñi war naa sang bi doomu sang bi ah li ngay pëkkaroo ci nit ki du jax yu furux nit ki li ñuy ci ci way juróom mooy mooy jëf ju baax ku ne isaam war a teg ko isaam yéen la ko xoon isaam mooy aju ibnu Nuhmaan <laughs> na nga dem bu nekk kooku mos a jóg bu ne bu ne xare takk na ñëpp di kër kër kër ñu ne isaam jóg na ñu ne waaw aju bi jóg na ñu ne waaw ah tëdd leen nelaw dana affaire bi dana réglé kon nag kenn ku ñun foog nga war a taxaw hmm? bu doom ju koo ci boot doon ndax ñun xam nañ ne suñu bàyyi seen seen dàll ju gën kuñ tudd ci ñun rek tudd way juróom ñun ndeysaan lañu wax parce que duñ ko wane muñ fee àgg nañ fexe ba weesu ay cam kon bo am la ñoo def kon nag bis bu dikkatee ñu ngi koy jàng alxuraan di jàng bi di jàng xasaayit ah di berne nit ñi di teral nit ñi ngir yàlla ah waaye li ma gën a contre mooy fukki weer ak ñaar di bind ay lettres ay communication di loolu si mbir ngor waaw nit dundee dañuy wax ne dundee maanaam dundee maanaam wuyu sant jàmbur dundee géntu jàmbur lekk jaxle jàmbur mu fàtte mu fàtte góor waaw xam nga li ma maanaam wuyu sant jàmbur bëccëg géntu jàmbur lekk jaxle jàmbur mu dégg nga fàtte góor waaw mu de waaw waaw boo boo dundee gerte jàmbur lekk wuyu see gerte jàmbur dégg nga fàtte ko ci yàlla tax maa ngi xaababal xam naa di moom ndimbal moom sëñ laa dimbale rek kàddu gi xaw a set sax da nga dañ ñaan rek dañ ñaan ci rek yàlla na yàlla musal ci woro yàlla yàlla def dëgg-dëgg taalibe def dëgg dëgg jullit suñ tuwaa dañu nangu dara suñu jëf yi suñu jëf yëpp lu mu mën a def rek yàlla ko jël doogu ci jëf suñ tuwaa am na kilifa gu mag ñoo na tàggu si laa di màkk moo ko ba du sàng ba demee suñ tuwaa looy def na suñ tuwaa daan ne ko daan ko aajiwut sa boo def naa fas yéene jox ko addi suñu tubaab suñu tubaab yàlla na ko léppam kon moom euh, addunaam ni neenalu ko woon ñaantu yàlla da sut suñu tubaab fan moom loolu wax ñaan yàlla fa sut suñu tubaab fan te ko da yaa ngi naan ko yàlla sut waaye fan am gudd baax na lool ndax a def daal ci boo boo boo lépp sol rek moom tekki rek kan sol ndax junni at boo ko dundoon bis dana ñëw nga ne doo fekk waaw nit dund junni ak kenn tekku dara nit dund ay at yu néew soxna jaar rek misaal ñëw 33 ans dund maam Jaara mu di kenn maam daanaka waaye ku mu tudd ñëpp aski boo ko joxoon dafa xam ne adduna da gàtt dafa tax ñu mu fexee di jëf joo xam ne du fay mukk ci àdduna suñu tubaab bi soixante-quinze ans ah xool ko ah moom mii kasaalika ah kon yàlla na si barkeem bis bi ñu jëm si yàlla bi su danañ dugg bismilaahi rahmaani rahiim àgg génn ci alhamdulilaahi rabbil aalamiin te yéen sant nañ ndax tim wala wala la ngeen matal seen wajur tuddee na sëñ Abdou Lahad ngeen def du mel loolu alhamdulilaahi rabbil aalamiin na ngeen sant yàlla baax baax ndax moom ko bokk ci ñi xam ne ku leen tuddee doom ku ñu ko tuddee yàlla yàlla lu mbugal maanaam doo doo yóbbu sa war seen nañ seen baax ñun ñëpp kon moo leen ko tudd rek waaw kon yàlla nañ ci yàlla taw taw feex jooju te way jur yéen ko tuddee te nekkul ci kaw suuf yàlla na yàlla yërëm yàlla yàlla xar àjjana te wëlër yi awoon si iblaad yàlla na ko dekkee ci bar sàq suñ ko sedd guy maa ngi sàkk nga ñaanal ci suñu dara bu ngeen suñ tuwaa nañ tàmbali sëñ bi am sëñ rek waaw jaamu yàlla ak lu ma mën ci àdduna danañ ko addi suñ Tuubaa yàlla na yàlla at ci jiw sëñ bi ba ñu at suñ jëf waaw li yàlla euh, lu jub na nga xam ne loolaa yéene woon de waaye lu ci mel neneen nag yàlla ma ko na tey ji xëy na lam yi sexut xam-xam waaye dama sant yàlla rek euh, tey ñaan rek yéen ngeen ñaanal kay tey yéen fii barab bii ma nekk da ngi ñaanal fi sàmbar defam fi lu ma fi def yàlla nangu te boo fi def dal yàlla naqari naqari yàlla taalibe guñ nangu na ma sas naa ne ko Abdoulaye yi ngi ñaanal ma waaw ñaan na kon déen ma ñaan rek ah, ok jërë ngeen jox mbokk yi ñuy seetaan lii mooy jotaay bi nga xam ne moom lañ leen jël si woon fii ci Ndindi Cheikh Mahamadou Fadil nekk ci euh, kanamu doomam ji di sëriñ Habibu kaddu yoo xam ne doon nañ ko baaxee ngir waajal màggalu Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne dañ koy amal ci at mu jot ñaar fukki fan ak ñett ci weeru koor yi kon nag ñu ngi delluwaat di ñaanalaat Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaanal Serigne Sidi mi nga xam ne mooy jëriñam yàlla yàggal ko fi loolu ak mboolem ay rakam kon Serigne Habib ñu ngi lay gërëm di la sant la ñaanal bu baax yàlla yàlla na defal ngërëm Serigne Touba yàlla nga fi yàgg lool te ànd ko wér ñu lay liggéeyloo tëbb la kàttan ba nga mën ko yàgg ñu ko àndal ñëpp Xaadim Moustapha ñi nga àndoon commission culturelle bi ci bokk yi baax yi ni ko sëñ Habib waxe sëñ mu sëriñ mu bu sa sëñ Abdoulahat maam asta sëñ si Abdou Lahad Ka sëñ Mouhamadou Kabir Ka sëñ Moussa Ka sëñ Abdou Lahad sëñ Thierno Bousso sëñ ak bokk yi nga xam ne ñoo leen fi wutu mi sëñ Abdou Lahad Mokhtar sëñ Abdou Lahad Ñang ak sëñ Abdou Lahad ko bokkal yëpp rek euh, kon ñu ngi siyaare mboolem njaboot sëñ Abdou Lahad gépp euh, ñi yéen ngi àndoon ak seen mbokkum taalibe di Abdou Lahad Jaxate bu sëriñ sëñ Jaxate Tindori kon nag déwénati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa